maa ngi lay Abdou Mbow honorable député mooy porte-parole adjoint bu APR euh, Abdou Mbow maa lay nuyu. Mamadou maa lay nuyu di nuyu yi ñuy déglu ñëpp. jërëjëf euh, Abdou baal ma ma waxtaan wi ak Bassirou Diomaye Faye jëm rek ci. Euh, charte non violence bi nga xamante ne ji kon dégg nañu Ousmane Sonko jiital parti Pastef mu ne du ko signé ndax ñi nga xamante ne ji ñoom ñuy déglu yéen waa parti Pastef yow miy wax ci seen tour man nga man nga dellusiwaat ak ñun ci li motiver position Ousmane Sonko boobu. waaw dañuy jàpp euh, bu fekkee ne rek euh, ñi nekk ci langue politique bi dañu bëgg bàyyi wala ñu moytu wala ñu wattandiku lépp luy. Euh, andi fitna ci langue politique bi euh, am na ay charte yoo xamante ne yàgg lañu fi ñu ngi fi ne buñ ko doxalee rek euh, jàmm dina am ci réew mi ma bëgg ci cité rek suñu constitution dëkk ci nu mu wattandiku ak ak doomu aadama ak yemale ak wattandiku lépp luy liberté civile ak politique fii ci Sénégal muy liberté d'opinion liberté de presse d'association de réunion wala liberté de manifester et que bu fekkee ne am na ay nit ñoo xamante ne jóg nañu pour wax ne euh, dañu bëgg jàmm sax ci réew mi surtout ñu bàyyi lépp luy fitna luy jóge ci lan wa euh, way politique yi am nañu fi ñu sukkandiko ku gën a kawe charte bi nga xamante ne moom lañ ñu bëgg a signaloo ndax li wér te mooy charte bi am charte bi ñuy waajal du gën a kawe mukk constitution constitution mooy loo xamante ne moo féete bépp charte ci biir réew mi ci kaw te charte bi tamit mënul ala kulihal waroo ak constitution ndax lu waroo constitution dafay dal di nekk lu illégal ci biir dëkk bi mais malgré même que suñu constitution dëkk tënkuñu ñun ñëpp ñu nekk ci langue politique ak ñu ci nekkul ci utum jàmm ak ci doxum jàmm ak yeneen euh, charte yu nekk ci réew mi suñu kuréel bi ñu bokk muy M2D depuis le 21 mai la njëkk signé suñu pacte de Bignona muy déclaration boo xam ne dañ ci woote jàmm woo ci bépp langue pour classe politique bi que ñu nekk ci pouvoir ci opposition bi ci leader d'opinion bi ci société civile ak ci mouvement citoyen ñu woowee ko pacte de Bignona jël ci juróom-ñaari engagement yoo xam ne benn bu ci nekk euh, daanaka sax doyoon na pour jàmm sax dakk ci biir langue politique bi kon bu ñu amee loolu yépp am suñu statut parti yoo xamante ne engagement buñ ci jël mooy respecter valeur essentielle ak principe de la république ni ko définir ci biir constitution bi bu ñu toogee duñu laajaat chart dafay mel ni rek kenn koo xamante ne jox nañ ko daanaka nganaay gu mag a mag a mag a mag a mag pour mu dem euh, jixaat lépp euh, xeex lépp luy euh, violence muy laajaat nganaay goo xamante ne daanaka amatul solo bu fekkee ne bëgg na jóg pour xeexe ci loolu très ma ko misaalee sànq ci ci ci ci tubaab mm-hmm. dafa mel ni ci arsenal juridique bi ñuy am boo ko jëlee ci constitution bi ak ñun suñu engagement bopp bi ñuy jël ci déclaration de Bignona ak suñu statut parti yi yi ñu bokk yëpp bazuka la et que léegi li ñuy demandé nii muy charte ala kulihal mënul gën a kawe loolu daanaka dañuy dema laajaat rek beneen beneen beneen paaka pour pour pour dem xeex ji euh, violence bi waaye am nañu lépp loo xamante ne doy na pour xeex violence ci langue politique bi. Bassirou Diomaye fay maa ngi ñëwaat ci yow euh, honorable député Abdou Mbow Euh, ma euh, ma maa ngi jéggalu ci xaar bi laaj bi moo di charte non violence bi ñuy wax euh, bari ñu ko rafetlu barit ñoo xamante ne bon dégg nañu waa parti Pastef Ousmane ko position bi mu ci am laaj bi ci sa gis-gis moo di charte la bopp buñ ci sukkandikoo mën naa woo indik dal ci ci ci ci ci ci ci ci ci géew politique bi wala da jàpp ne lii Bassirou Diomaye Faye jeexale sànq mu di am na yu fi nekkoon yoo xam ne bu ñu ko doxalee du ñu soxla lii. waa jërëjëf xam nga d'abord euh, li may rafetlu rek mooy xam nga bu ñu nekkee ci réew képp mhm. koo xam ne yëkkati na loo xamante ni dafa ne moom dafa bëgg jàmm am ci réew mi dafa doon loo xamante ni ñun ñi nga xam ne ñoo féete ci Euh, benn Bokk Yaakaar te ci wàllu nguur gi dañu koy rafetlu ndax àdduna aussi je pense que noonu lay demee kilifa dafay wax jàmm di ko def muy benn beneen bi. Mhm. maa ngi dégg léegi monsieur Faye mu ne waaw am na constitution dëgg la am na ay loi dëgg la am na ay yeneen dëgg la donc waruñu ñu proposer charte. ba pare moom ci biir waxam mu ne ñoom proposé nañ charte boo xamante nii mënut nekk ci kaw constitution bi xam nga loolu déjà ay wax la yoo xamante ni yu waroo la loolu li muy wane rek mooy ñoom fi mu toll nii lépp loo xamante nii war nañ ko mën a wax pour jaxase xelu nit ñi dinañu ci nekk parce que ñoom ci loolu la ñuy xëy suba ak ngoon waaye li am ba des mooy li Ousmane ko wax muy seen njiit moom mooy moom faalewul kenn nawul kenn. du signé benn charte te amul kenn koo xam ne jox na la cër ci réew mi ngay wax mu lay déglu loolu moom mooy li nga xamante nii waxoon na ko tey jii ci conférence de presse dëggalaat na ko donc li muy wane rek mooy gis nga nit bu fekkee da nga nekk kilifa nekk ci réew constitution naam am na fi loi ak règlement am na fi ñii nga xam ne ñoom ñoo jóg ñuy ay chef religieux nekk société civile ñoom li ñu bëgg rek moom mooy jàmm am ci réew mi te nit nag su fekkee ne dafa ne jóg naa pour que am initiative pour jàmm am ci réew mi je pense que bu fekkee kilifa nga am loo xamante ni moom ngay artu ci réew mi ak loo yéetu ci réew mi wax bu rafet wala wax bu neex sax sarax la olof njaay loolu lay wax waaye du ma signé dara ñi nga xamante ne nii ñoom la àndal sax ñu war a def réunion ak ñooñu initié charte bi tey ci ngoon réunion guñu mu ne man du ma loolu mooy d'abord ñi nga àndal nawoo leen nawoo kenn ci réew mi képp kuy jëf initiative amul kenn loo xamante ni farataal nga ko gis nga réew jàmm moo ko lal te ci jàmm rek la ñu mën a am ay élections libres transparentes et démocratiques ñun ñëy képp koo xamante ni yëkkati nga initiative ne man kat dama bëgg jàmm am ci réew mi bu boobaa dinañu ko siite parce que xam nga lu tax ñun jàmm moo jik réew mi te loolu moom la ñu xam ci la ñuy dox. duñu wax wax bu ñaaw du ñu am lenn loo xamante ni dinañu ko def pour jaxase xelu sénégalais yi ne leen nangam bi am na wala nangam bee am na li am daal mooy gis nga nit boo dee kilifa da ngay wax wax bu rafet naw nit ñi. bañ a jàpp ne yow rek yow yaa am dëgg goo xamante ni war nga ko mën a wax nit ñi déglu donc je pense loolu foofu bëggoon naa fi bëggoon naa fi am xalaatu Bassirou Diomaye fay euh, Bassirou mm-hmm. donc bi ñu tegee xalaat bi Ousmane Sonko génn wax ñëpp dégg mu ne moom bokkul euh, wax jooju est-ce que est-ce que yaakaaroon ne day tax nit ñi dëkkal ko am fuñ ko dëkkal ci ne doxul ci jàmmoo nitu fitna la te amul woon weneen doxalin wu cest à wu gënoon a woyof même bu fekkente ne du ko def sax lool na mooy yëpp naa fekk yu ñu moytu naka ngay def waxee loo xamante ne da lay wóor ne loo ko def Mamadou mënoo wax loolu mënuñu wax day wax li même bu fekkee lu ko def loolu mooy yëpp naa fekk war a bàyyi Sénégal nag justement. Basirou dafa mel ne déggoo li ma la wax de. non non non dégg naa ko bu baax. non ma même néew ma bu mu wax lu mu dul def wala bu dama ne. non waxin bi mu euh. waxee ak ni mu ko waxee ndax du tax nit ñi dëkkal ko fenn fi. déclaration moma tax di wax mais junju ma fi non attends attends attends junju ma fi waxina naa fekk bul ma wax lolou ma waxul non non da nga né ndax ci rafetul woon mu wax leneen même bu féké la du ko def lolou nga wax allez-y sa même bu féké ne du ko def lolou nak mom lañu lay wax né nit bu dé wax lu mu na a def waxuna naa fekk la té duñ bokkuñu ci lolou kay c'est un principe maintenant ñun duñu wax lu ñu dul def ab Abdou Mbow mii di wax ne suñu suñu suñu suñu suñu président dafa wax ne respecté wul kenn euh, nawloowul kenn te dëggal na ko tey bu génnee si ko président suñ ko waxee ci bu muy moom ci boppam man ma bàyyi politique gis nga njiit du toog ci rajo di wax loo xamante ne du dëgg loolu dañ ko loolu lu ñu war a moytu la xam nga yaa ngi wax xam nga yaa ngi wax yaa ngi yaa ngi wax waxi naa féq di attaqué nit ki di ko wax waxi lu dëgg te lii mooy ak réewande quand même je suis désolé mais Bassirou Diomaye Faye lii du yëfu nit maa ngi jéggalu euh, Abdou Mbow Abdou Mbow voilà ñu bàyyi la nga tëj waxtaan bi waaw xam nga li may wax rek mooy euh, man de wax dëgg yàlla euh, kenn du ma dégg ci rajo mooy wax loo xamante ne nii naka sudul noonu la man li ma wax dafa leer parce que Ousmane Sonko moo ko wax tey jii ci boppam dégg nañ mu ne man amatuma intermédiaire sama diggante man ak chef religieux yi parce que loolu moo ko wax parce que li ñuy wax aussi du waxu jaaw li ñuy wax aussi mooy loo xam ne moo am moo ne man duma signé benn charte tey jii mu defaat conférence de presse ne duma ko def dëggal ko donc ñin dama ne nit bu dee njiit nga da ngay wax wax joo xam ne moo rafet wax nga ko sànq gis nga àdduna wax bu rafet sax sarax la parce que àdduna bu fekkee ne danga nekk kilifa ñu ne ay kilifa jóg nañ pour am jàmm mais li gën